yéen ñi bëgg série pot et Marichou te yàkkamti jot notification yi pour xëccoo PVDS bi ci biir commentaire yi gaaw leen gaaw téléchargé suñu application pour bokk si ñi njëkk seetaan खा रही होगी ना waxtaanee daal lan eh. moo xew. cet cetu lan. cet ko jullu ko. man moo ñu ma qu'est-ce qui se passe. cet dugg nañu ko. man waru lañ man. kon wuyu ma cet moo ñu dugg. waxtaanee laa mel ni sama doom ba cet dugg na ko. hôpital laa jógee ak moom nii. def ne ne ëmb am na fa ba ñu dem hôpital ak suñu kontaan na suñu yaakaar lépp a tas ñëw nañ nag ñu ngi nii dara topp ñu. waaw mais taalee laa tamit mais ëmb su ko yàlla ya tuddugul mais kan dina ko tudd. yow xanaa déggoo li ma médecin bi nee na ya, ya, dootoo amati sa fab doom nag yaakaar nag fa tas ni ko ndéggoo li ma lay wax mais su mënatul ëmb mooy lan mënatul am sa avortement lu gàtt gaa lu ngeen sama doom gi taloo sama doom ngeen guddi taloo ko bëccëg nga toog sa pour te gi rek mi ngi ne fof eh xoot mu dama ciy ko Casamance laa ci mag moom nag tàgguma la dama lay yëgal li fi ñoom maam baawoon nag ca na mari su guddi mari su bëccëg mari su guddi mari su bëccëg léegi na wax gi jeex na papa pang. jooyal doom sama rongoñ a jeex rek waaye maa leen dàq jooy waaye mënutuma ci jooy dara xamatuma ci dara jooyal bu baax Bébé Diop lan la depuis sànq ma toog di la xaar pour nga tëdd si yow nga toog fii. man c'est que je suis un peu pensif rek. pensif yow sànq nga kontaan léegi nga ñëw mel nii lu xew. non je suis très content de la nouvelle mais c'est juste que xam nga sama pap je trouve que dafa amoon benn tomb mu amoon en fait gis nga ni temps yi naa ak sa papa. waaw gis naa loolu mais comme que waxoo ma ci dara kenn. voilà en fait c'est parce que sama papa dafa am benn doom boo xamante ne ñun xamuñu ko. li nga lay wax nii xamoo sa doomu papa. je te jure bon mun naa ne sax c'est un enfant caché. caché yow loolu est-ce que leer na la. mais bien sûr en fait sa papa moom si gën a xam dara donc. moom laa si doon waxtaanal ouais donc euh, ni la ñu quoi donc sa euh, papa moo ñu si aider pour nous retrouver quoi donc du coup t'as yi de bi dafay dafa ça sama bopp daal moom la nek di xalaat tout le temps loolu moo tax ma xaw perturbé rek mais du leneen. ok bul talk fii kañ dem tëddee après nous voir d'accord mon amour. Dans tête. C'est un des filles. Adieu. Hein, Harunatou, en fait, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Dans le mot Héo. Fan est passé. dama toog gisuma samay règle mais sama yëf man yëgoon naa ëmb par la suite laa def test yi ba ma ko defee après mu négatif soo gisee samay humeur fan yi yëpp juste que j'étais stressée dans le la moo waraloon may def non lepp après ci la andé ak talé la ñu dem hôpital bañ démé hôpital médecin bi xamal ma ni ëmb ma mais sama yef bu yamon fofu rek garaawul mais daf ma xamal ni ka wuro sax ma mëna am doom mais sama yëf t'inquiète nee na am na yeneen analyse yoo xamante ne wax nañ ko def mën a mu xaw ma lan waaye doom man ak yow dinañ ko am xam laa bëgg dinañ ànd man ak yow ba ci médecin bi yow Vera man foofu dinaa ci am lu ma leer et on étudiera toutes les possibilités pour man ak yow ñu am doom te gëma ne dinañ am doom incha allah ne te fais même pas de souci pour ça bëgguma nag ngay triste wala ngay nekk fii di xalaat quoi que ce soit d'accord ne t'inquiète pas. kii léegi mën nga dem balaa Eva di ko jëlee neneen. Non, tu penses que ça n'a le baini comme ça dans cet état-là Je peux pas. Amnida. Mais eh ben, me mettre les bas, c'est quand d'accord. fit déjà vous faites très bien votre travail donc je de encourager Fils devise et la perfection te atteindre rien mais pour moi, perfection mon limite on tend toujours vers la perfection te lépp pour noir de pour entreprise bi kanam dinañ si loolu ma teg ay process sur d'abord ci débordement horaire yi am na ñenn heure bu leen neex la ñuy ñëw ñenn yi buñ demee pause pause bi bu jeexee heure bu leen neex la ñuy dellu si am na ñenn duñ ñëwaat moo tax léegi ma fixé heure 9 heures la ñuy démarrer 13 heures heure de pause 14 heures ñëpp dellu si. mais madame Diop peut-être xamuloo ko woon mais nii lañ mës a ak Momo Momo def ñu mës a une certaine liberté té non la fonctionner mom ci lan lay juger résultat ak performance mësul attardé wu si yenn détails eh na waxuma loolu sax mais madame Diop je suis désolée yenn changement yi boo jël je pense que na nga war a wax ak na nga war a consulter man en tant que directeur du personnel ma mën a gis employé waxtaan si ak ñam comme ça ma defal le retour. Si euh, du jour au lendemain nga bëgg imposer ses règles c'est sûr que fait frustrer employé employés..! <laughs> Louise ça fonctionne pas comme ça avec moi décision yu vous êtes tenu de les appliquer C'est entreprise On a un problème problèmes góor yi seetlu naa ne dafa am un barrage bi a sama diggante ak yéen mais loolu duma si blâmer kenn nag ndaxte du faute professionnel ku mu neex nag mu téye boppam mais tant que yéen a ngi fi liggéey bu ma bëgg di ngeen ko def pare naa si wax bi mën ngeen delluwaat seen activité nga waa kër gi

di la euh, wax ni la daal toogaay bi daal dama gis nii dafa yàgg te li na ci yow rek daanaka moo nekk ci man daal wéetaay daal moo bëggoon daal ñun ñaar daal ñu ñu daal moom mooy li ma yëkkati woon daal parce que daal. wéttalante. waaw waaw maanaam daal. nekk sa nekk sa borom kër. denc la nga doon sama soxna waaw ndax tamit daal. gannaaw ay jamm te diine daal nangu na ko waaw te ñun daal bu ma sañoon daal moom daal ma jël moom daal samay tànk moom moo fi indi woon ah Amar ah say kàddu rafet na nag waaye Amar bul fàtte ne dikkoo mii sëy sama doom Badou hmm. sa soxna la woon waaw loolu dëgg la te diko sama dom la mako ko yar mm-hmm. te sa digganteeg Badu mm-hmm. dara ëmb ma ci waaw lol lol dëgg ah lol nak dina wara ndax na da xaw doy wax de ah mais dal lenn da la lay wax mm. wax naa ko sama biir wax sank mm. gannaaw ay jam waaw lol dal dama bëgg ñu jël ko tek ko suñu ginaaw waaw li ne suñu kanam dal. Suma soñon dal li ma la wax ni dal ñu def nonu dal ci jam ak salam waaw li ma gën a. dinaa waxtaan sama njaboot. jërëjëf waaw ko defee man dinaa fi dellu siwaat jëmi jamono dinaa fi ñëwaat daal daal ñu gën ci waxtaan daal waaye daal jàppal ni daal hmm. loolu daal lu ma bëggal waaw bon baax na man maa ngi ñëw dellu ko. waaw kay nuyul ma xam alors réinscrit nga ko ba pare. réinscrit naa ko D'abord, daa bëggoon la classe nag nee naa la classe kii que <laughs> bëri alors mën naa la ok ok bien sûr. ne touche à rien. J'arrive. waa jàmm la Ouais. Mon la Attends, tu es magnifique, Taï. Je te jure. Merci. à 4h du matin. Hmm. Je me tourne, qu'est-ce que Faut faire En fait, tu <laughs> Parle-moi sérieusement, ouais, bébé Joe. Pourtant, je t'ai répondu sérieusement. <laughs>

te waxuma nga yam audace si ma ko waxee nii. Eh, Eva est-ce que xam nga lan gis nga état bi nga toll ni. il y a de fortes chances que marie du ci mës a est-ce que xam nga la moo xew te dinaa la ko wax Marichou mën na am dootul mësati am doom tu vois un peu. gis nga démb ba nga ñëw fii dama annoncé cette merveilleuse nouvelle que tu es enceinte de notre deuxième enfant juste après le fi Marichou ñëw xamal ma ne ko mën na am dootul amati doom hôpital lañ ko ko annoncé comme ça elle risque la stérilité tu vois un peu est-ce que imagine un peu instant ce qui se passe tu vois la gravité Et eh bien c'est ça la situation gis nga man j'aurais aimé que démb ba nga ñëw di ma annoncé cette nouvelle ma ak yow nuit blanche nga xam te ne démb man ak du newal on va fêter ça mais c'est pas possible en ce moment là. je n'ai pas la tête à rester ici damay ñibbi te su ma déposé Mia je dois sortir pour aller voir Momo me veux nag nga gérer fille. tu peux fermer mon bureau On a ma de nag Mario, actuellement l'heure est grave. Je suis allé voir Pascal. Mais ni moko gisé non. Non du baye. Et c'est la seule personne bo Ça me secret yépp moko xam. une solution là, Qu'on l'élimine pour de bon et sans trace. Monsieur Lopez, ay waxu éliminer ngay jël tek ko ci souf. Mais yow fi mu nek ni média dañ la tek moindre geste boo def dangereux. et puis ça yo Pascal mais munoo ko attaquer parce que maîtriser woo ko te nit maîtriser attaquer Si mu ni il est mieux placé pour te détruire ah. ah bon. bien sûr. mais jàppal avec Lopez rien n'est impossible. Ce ça sera impossible parce que il y a politique teg ko ci en plus nga Nicole pour me diriger mais pour me diriger Mario Mario Je pour me diriger arrête de me dire ça bul que Italie et ñaari tali Nicole j'ai besoin d'elle ci une femme. et puis moment bi tu as ay règlement de compte c'est pas le moment. bu nekkoon ay affaire de règlement de compte ne ma pas ay photo qui wane ni Pascal il est vivant. mais raison de plus tu es la personne la mieux habilitée à régler ce problème parce que y a des manigances ba ni Pascal est vivant. monsieur Lopez su mu nekk nii yaa ngi ci ay tolof tolof pax bi nga dugg nii kenn mënu la ci génne te man dama dugg ci combat boo xam ne man dirigé wu ma ko ak efficacité bi ma am yëpp ak capacité bi monsieur Lopez combat bii demal woo Nicole mu génne la ci. Ah parce man du ma ci ànd ak yow. yaa wax loolu monsieur Lopez à nous revoir. su ma éliminé wul Pascal ma xam ne je ne suis pas un vrai Lopez. yéen démb ngeen ma jox mission bi tey ngeen taxaw ma nii maa ngi def lu ne dama koy envoyé message bi mooy vie ma koy woo du ma jël. gis nga yow sa efficacité moo taxoon ma tànn la mais gis naa ne yaa tardé suñu business. mais daal xoolal bu leen am leen lu leen metti tey lu mu guddi guddi fu mu nekk dinaa ko fa fekk. en tout cas tu te dinaa la xamal benn affaire. kon fii nga dëkk daal ñii nii ngay àndal li bett ma de mu man yow yaa ma bett. benn affaire laa leen xamal gis nga ki ngeen di jéem fexel mo moo leen gën a bandi fukki junni yoon je sais pas nak lan ngeen nar mais deux choses ngeen di risquer sen bakken ak la prison te prison <laughs> man mi di wax ak yéen xam naa la moo fa nekk xëy na da ngeen xamul moo tax ngeen koy fooye te nag gis nga yéen ñaan yi j'ai envie que vous sachiez une chose gis suñu histoire Pape li ñu doon dund une histoire Pascal Lopez C'est c'est terminé Papa, je ne sais pas am celle-là bande. Hum. est-ce que tu sais à cause de toi Momo n'est pas en ordre de sainteté avec son famille man sama la à cause de toi tu préfères faire le choix entre ak que que suñu famille. bordel mais quelle famille. bon lis-moi ça ma famille man que ce soit la dernière fois que ñëw sama kër gi ma cérémonie. soo tu cause cérémonie. da ngay dem cérémonie Eva Marichou ou Mia mais Duman, tu sais ce que je considère comme une famille des gens qui ne te trahiront jamais. c'est eh, grave wala ma la non damay Ne damay wàcc sax parce que lu ay nit ben affaire rek la bëgg la famille est sacrée l'honneur est sacré pote bu ko nous pas. fàtte yow naa la wax benn affaire mu dugg sa je veux des résultats. Et immédiatement. Sinon, je lay rey waxuma nga def li nga dama que nga def li nga mënul mais des résultats. est-ce que tu nga ma na naan ay bu de nga li la wax Je ko السلام عليكم وعليكم السلام خلاني خلاتو مساح nga def ça va ça va yow da nga sedd de lan la sedd ma sax ana pot yeeg seegul déedéet moom laa doon xaar nii dégg naa nouvelle bu neex bi ah bon kontaan naa trop merci yal na juddu te du am benn problème màgg ba am ndey ak bàyyi dégg nga amiin mais nag euh, ëmbi France ak ëmbi Sénégal du benn de. bii hmm? da moytu génn njolloor bi ak timis da ngay moytu yëkkati yu diis yi aussi. d'accord. Hmm? et puis y une chose keew yi ak suuf bu ci dara xiir des fois di nga toog sa xel nekk ci. mais bul ko lekk de da jël équivalent am loo xam ne day xeeñ la même chose comme ay guro ay yooyu nga lekk ko dégg nga. parce que des fois di nga gis benn femme mu kii accouché nga gis kew bi nekk ci boppi doom ji mbaa mu nekk ci kanam gi mun na ko fatt sax mu dee. Ah waaye yooyu c'est à éviter. <laughs> te bi yoon na xool xool ma fii nag ci biir bët. andil nga mu wujju nag bi yoon jëkkër laa bëgg am déet. maman na sa xol sedd. Hmm. jëkkër ju coofe laa lay indi. déedéet xanaa <laughs> yaa ko wax de. maa ko wax. baax na mën na ko yàlla mottali jàmm. maa ngi dem tëddi. ay tëddi. waaw d' accord merci. bonne nuit. Franchement, Marichou le d'Alni, dal ni une na ah c'est Linga ça va ça va bien bien merci Bien ici, Jam. si ma si prenez place ça va ak léegi yaa ngi ci jàmm. yaa ngi <laughs> lii de ku ma ko waxoon du ma ko gëm. Hmm? monsieur yaa toog nii. Ah, si man la. <laughs> affaire bu garaaw. Mm-hmm. mais nag xam naa ne di nga ne lakkale naa ah. mm-hmm. dama lay woo doo ma jël ma lay envoyé message. <laughs> non loolu moom tu n'es pas la seule quoi tu sais. Uh-huh. Euh, le olof di wax rek. Uh-huh. daanu dajul suuf. bu ñu sañoon ku ñu woo ñëpp la ñuy waxal. Uh-huh. Euh, indil ko jus mu naan s'il mais nag duñ ko mën duñ mën a wax ak ñëpp. parce que circonstances yi activité, yi moo ñu ko dul permettre. ñun moom comprendre nañ <laughs> voilà heureusement comprendre <laughs> mais. heureusement euh, dama la seetaan à la télé. merci merci beaucoup. Euh, déglu ce discours nga tek ay programme intéressant yoo xamante ñun jeunes yi daf ñoo intéressé man dama mouvement. mouvement mouvement bi ñëpp jeunes ah bon te ñoom ñëpp nag loo ci xamul. Mhm. nañ pour la. Hmm? yow ci ba c'est intéressant hein? ma ci. moment bi toll parti politique rang la loolu sa ñëw bi am na solo loolu la ah te tamit dama la bëgg a ñaan rek benn affaire mhm. su ma sañoon léegi ngay jug ñu ànd suñu kër ndax monsieur Lopez sa kër nga wax dama lay sagoo waaw sama kër sama waa koñ gis la sama waa kër gis la ndax yow dama lay sagoo fu ma toog say wax laay wax mhm. te yàlla dimbali na mu ba ma gis la nii kat looy xaar euh, mais est-ce que loolu mënuñu ko jàpp beneen yoon fu nekk boo demee ni dootuma la gisati yow ma dama lay sagoo fu ma tool yow yaa ah. ma mën a sagal non sagal ma rek ñu dem yow tamit nag yaa ci mën a jàpp. mais naan naanal ji. mën na mën a gisee mën a gisee tiit sax. yow laay déglu de. bon mais xam naa duma fa yàgg nag quoi. parce que soriwul sax. Mm-hmm. soriwul yaa ci a jàpp rek. <laughs> d' accord d' accord. mais xam amul benn problème. si si yow kay yow kay kon toogaay amatul. mais naanoo su jus bi ah. yaa yuuxu <laughs> ah, ah, de lu xew. Fred. ba jàmm. booy gàlle maamu Chabi laa jóge léegi. ñuy régler problème mu paa bi waxoon ne takk bi du am. waaw. mais man daje fa bii salopard. salopard booy benn cousin boo xam ne man ak moom ñoo defandoo tool booy. damay bañ mu wax. booy bi waxkat la daf may yàqal. non instant yi moom jàmbaar daanu ma non c'est fini. affaire bi moom jàmbaar daanu na yooyu noonu moo yàqi la xanaa doon na toog mais ma laaj la yan intention nga am carrément ci Chabi da ngaa bëgg dem ba sës wala foo bëgg a yem ak may booy ma xam. booy Chabi man ak moom dañuy dem ba jeex damay dem ba takk booy. ba yegg. damay dem ba yegg guux morning bi investir ko samay business. waaw kon léegi kon nag léegi foofu solution am ci li nga ma wax nii solution mooy lan waa ji ci nga nekk loon ndugu noonu da koy jéem a jël taf ko ci sa bopp comprendre li ma wax est-ce que taf ko ci sa bopp di ko jox cet wee muy téye comme mu mën a tëj laaminam est-ce que yaa ngi may dégg loolu première option rek la de deuxième option xam nga mooy lan. chat moom yàlla dogal na ni moom loo saxal ci nopp ya looloo fay sax parce que yow la bëgg donc li nga ko mën a wax loo li nga ko wax rek lay gëm bu waa ji demoon yàq fa sa der ba ba nga yàqu yaxeet it sa waay boo ñëwee wax ak chat bi chat lay dégg yow lay gëm comprends li ma kon moo tax ma la boo ma naan daanaan daanu la dootuma la xàmmee doom day booy yow <laughs> mais li wax dafa am. Ah, loolooy taal parce que gaan bi mënul wax man may wax sabi di gëm. gaan bi loolu mënul nekk lu ma ko wax loolu lay def. du ko mën a gëm. non boo da ngay toj comme verre booy. damaa <laughs> géré la géré ko noonu. noonu lañ koy géré. jeex na léegi xam lu ñuy def. damay dem explain nag booy bi. di xool xam ndax gaan bi dina am lu muy wax wala du wax. du wax comme day sabi yow lay wër waxoon naa la ko. <laughs> non. xam nga lan laa nekk di xalaat ni eh. l'amour rend aveugle tubaab ko wax de booy bi dama koy wax ba wër ko tuur lëndëm ko waaw yow ku am science nga dañoo problème du rëy ci ñun déggoo li ma la wax de amul mais affaire bi jeex na loolu laa bëgg jàmbaatu daanu jamais nañ bougé dox waaw jeex na doom day jàmbaatu daanu jamais non mënta ne loolu boo moom boo mën léegi duñu dem ci kii bi Bienvenue. Ah, merci. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Ça va Ça va très bien. L'idée comment ku monsieur Lopez ça me nek. monsieur Lopez Va jàmm <laughs> si j'amla. Ah. là. ah mets-toi à l'aise dama content. Hein. ah oui eh, vraiment yore yaa dëkk fit. waaye Ah ouais On est merci. Content.